dañoo am lu lu ñu am ci jamono ji te loolu doon yàgg mooy babu ci jamono président Macky Sall mu fàttaliku arab fàttaliku langue fàttaliku histoire bi xam suñuy doléance yu yàgg yi ñu fi tegoon ci kaw taabul te kenn réglé wu ko mu ni kon li fi ci jiitu defoon muy Ablaye Wade ñu di ko sant di ko gërëm mooy fi suñu ndam bismillahi rahmaani rahim te dara ci tey لله الذي بنعمته تتم ah, ah, bi alliance des arabophones du Sénégal alliance des arabophones du ko tax a jóg alliance bi mun nañoo wax li ko tax a jóg mooy def suñu participation ci biir réew mi en tant que ay nit yoo nga xam ni peut dañoo jàng arab mu doon langue comme yeneen langue yi ñu jàpp ni euh, nit ki warul jàpp ni moom bu jàngee arabe rek presque dafa war a yore cré dem ci classe yi loolu rek la war a def waaye bu génnee ci loolu amul même bu échecgee ci côté boobu day jàpp ni warul mën a def leneen ñu gis ni mag ñi am na lu ñu fi indi woon liggéey ci lu bëree bëri ci langue bi mais ba léegi am na lu des loo nga xam ne ñun war nañ cee bay suñu waar loolu moo tax alliance bi jóg pour ci wàllu formation ñu taxaw ci lu jëm ci côté boobu mais alliance bi aussi Euh, dafay yëngutu ci beneen côté mooy côté boo nga xam ne nii mooy li ñuy tuddee dialogue interreligieux parce que dañoo gis ni àdduna bi fi mu toll nii euh, Sénégal nekkul rek benn réew bu mën a beru bàyyi yeneen réew yi mais dafa bokk ci biir àdduna bi te actuellement nii gis nañ ni àdduna bi yëpp mi ngi tàkk am ay problème te li ko waral mooy entre musulman chrétien wala keneen ku bokk ci beneen diine. avant aussi Sénégal dañoo doon takk ñun jullit ak catholique dañoo bokk koñ bi takkante amuñu benn problème. mais loolu doyul parce que dañoo gis ni àdduna bi dem na ba nga xam ni Sénégal àgg na foo xam ni yàgg nañ seetlu nañ ci jamono yu mujj yi jàngu bi yëkkati seen kàddu ay jullit am gis-gis buñ ci am xaw a ñagasal wax ñu jekki-jekki ba ci yàgg ñu gis ay jullit tamit yëkkati seen kàddu wax jàngu bi am nuñ ko gisee ñu ni nag xoddiku ci bi nga laq léegul lu mel noonu su amee war nañoo woo jeunes yi nga xam ne ay jullit lañ woo jeune yi nga xam ni ay musulman lañ ak yeneen diine yëpp parce que yàlla ku du la wàcce ci kaw suuf yàlla même kii jaamu bant yi wala muy jaamu xërëm wala muy jàmm lu mënti doon moom yàlla da koo bëgg moo tax mu wàcc ko fi am amruhu isa arada shay'an an yaqula kun fayakun bëgg gi mu bëgg lu mu wàcc rek daf laa bëgg ñu ne kon pour jàmm am mooy tax ñun ñu mën a tal dara état bi mën a nekk ci jàmm ñun ñu mën a nekk ci jàmm état bi mën a doxal li muy doxal ñun ñi nga xam ñooy dukk ci dund ci biir dëkk bi tamit ñu mën a nekk ci jàmm doxal. nan ngeen fas yéene jëmmale loolu yëpp. ah loolu yëpp fas yéene jëmmale mooy daje d'abord concertation daje suñ biir comme lu mel nii woote waxtaan comme ni ma la ko waxee bi ñu commencé defe naa ne amul benn këru diine boo nga xam ni bàyyi nañ ko yàlla nag moo mën a matale li la mais dem nañ fu bëri dem nañ ci ba ci évêque bi waxtaan ak moom donc loolu niñ ko bëgg a defee mooy dem nuyu mag ñi ñu ñaanal ñu ñu laaj leen seen xalaat li ñuy bëgg def yéen bu doon yéen nan ngeen xalaat su ko defee ñu jox la seen xalaat ñoom suñu leen joxe suñu joxee suñ seen xalaat seen xalaat ñoom ñun en tant que ay jeunes en tant que ay ndaw ñu nekk ci mouvement bi ak àdduna fi mu tollu am na beneen gisin ak beneen doxalin donc dañuy jël loolu ñu mag ñu jox boole koog ñun fi ñu bëgg a teg suñu tànk participer ci développement réew mi participer ci jàmmi réew mi comme ni ñu ko waxee suñu discours su fekkente ni dara lu baax am na ci réew mi ñi nga xam ne ñoom ñoo laaj ba ñu jox leen ñu yore réew mi def nañ ko ñu ne leen jërë ngeen jëf li ngeen def baax na su fekkee gis nañ li ñu laajoon ba ñu jox leen ko ni ñu koy doxalee ñun am nañ jàpp nañ wala yëg nañ ñun ñu nekk ci suuf ni doxul ñu taxaw ni liikat kat duñ sànni xeer duñu toj pono duñu saaga mais dinañ yëkkati suñu kàddu parce que kàddu moo ëpp solo parce que doomu aadama xelam mooy liggéey mais du ay cëram cër yi day manifester liy jóge ci xel mi kon doomu aadama jël xeer di ko sànni soo sànnee rek sa xel moo la sànni fas yéene wu leen seetal mais yéen a wax wax lu développement boobu. Mhm. ndax alliance bi tey surtout nationale bi si dugg. ISRA mhm. boobu day mel ne fas yéene wu yam Thiès mais. Mhm. surtout liggéey ndax am ngeen si benn euh, loolu loolu loolu loolu am nañ ci gis-gis parce que comme ni ñu wax am nañ ay membres fu nekk. Euh, ñoo nga xam ni bokk nañ peut-être mën na ñoo matale dañuy door a juddu tey la ñu euh, def li ñuy wax ngénti suñu bopp wante am nañu ay projet de développement. parce que njiit yi nekk bul fàtte ni ay nit ñu jàng lañ jàng mooy lan ay intellectuel lañ fu ñu jàngee ci réewu arabe yi fu ñu jàngee ci lycée yi fu ñu jàngee ci école franco arabe yi programme bi ñu yore lu nekk ci biir kon ñooñu mën nañoo teg projet comme ni ko yéen seen seen yeneen nattaangoon mi jàng yeneen langue tege ay projet de développement projet de développement nag vraiment dafa doon lu gudd te peut-être xëy na du mën a toog fii développer lépp mais am na luñ ci def suñ demee ba ci kanam di ngeen gis ni ñii xalaat nañ ci côté bu nekk. mooy fan lañ koy féetale citoyen la wala politique la wala wàllu diine ku tax a jóg nga leeral. waaw côté boobu mën naa wax ni bi ñuy ut euh, def demande pour ñu ut suñu récépissé la fa nekk mooy soit que nga nekk récépissé bu parti politique. wala nga am récépissé boo nga xam ne nii dafay nekk récépissé pour euh, pour euh, association wala mu nekk récépissé pour syndicat. mais ñun dañoo opté pour am récépissé wu euh, association mais loolu du ñu tënk pour ni duñu yëkkati suñu kàddu parce que politique comme ni ma wax ci biir saal bi niti politique dañoo fexe bañ solal leen mbubb boo nga xam ni tey loo yëkkati rek ñu ni day politique su ko defee bu ñu nee la day politique rek yow nga taxaw te loolu suñ ko seetaanee muy yéen journalistes yi muy ñun yore association muy keneen réew mi day taxaw parce que même yéen ñi am na loo xam bu ngeen ko defee ñu ne euh, journalistes yi léegi seen liggéey donc bu ñu defee ñun tam ñu ni nangam mais politique bi ñuy wax mooy politique de développement boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon moom moo ci la tabaxe état islamique bi nekkoon ci madinatul munawwar kenn mus koo gis mu xeex ak chrétien kenn mus koo gis mu xeex ak yahud kenn mus koo gis mu xeex ak ñam fa fekkoon mais dafa ñëw ni leen ñun ak yéen ku nekk yàlla moo ko fi indi diina bi ngeen yore jëw téye leen ko diina bi ñu yore ñu téye ko su ñu amee suñu problème ñun ci suñu biir ñu réglé ko ci biir Madina mais su amee ku jóge ci biti indil ñu problème dootuñu xàmmee jullit dootuñu xàmmee chrétien dootuñu xàmmee beneen diini ñun ñëpp ñu ànd défendre suñu bopp donc ñun foofu lañ taxaw xoolee ci côté daara dañ naan daara euh, moderne xam nga daara moderne moo bi mooy ci ñu bari niñ ko gisee mooy léegi nañu teg alluwa fële léegi nañ teg kaye fële léegi bu ñu toogati bu ñu jàngati comme ni ñu doon jànge sëriñ daara bi na sol lee sëriñ daara bi na def ne ñu ni noonu non daara moderne mooy déggin déggin bi mooy lan mag ñi lañ defoon fexe ba xale bi juddu am benn at ñaari at ñetti at ba cërëb dëgër ñu fexe ba mu mën a mokkal alxuraan loo nga xam ne mu ngi tàmbalee baqari ba naas ku ne xam na ne alxuraan li ci nekk fa mu tàmbalee ba fa yam ku ko xas ba mokkal sa xel ubbeeku na te lii preuve bi ñun bi ñu nekkee ci réewu arab yi gis nañ ni ñi jàngoon euh, mokkaloon alxuraan fii ñoo dàqoon a jàng ñoom bu ñu xoolee ci école française bi tamit bu ñu demee dañuy gis ni ki mokkal alxuraan moo dàq jàng ku dul moom ñu ni kon niñ koy moder moderniser mooy lan xale bi da doon dem di rooti ci robinet ci ci teen nañ fexe ba defal ko robine mu toog di ci root xale bi da doon taal lampe pétrole wala muy taal sondeel nañ fexe ba utal ko làmp bu leer mu jàng teg ko ci ay conditions li des bokk na ci tamit mooy euh, ñu ëpp ci ñun ñu jàng ci arab du ñu tëju tëju bi mooy lan li ñu xam bëri na mais malheureusement partagé wuñ ko ak ñeneen ñi dañuy xam rek dem def seen liggéey ñëw toog yor seen njaboot. ñu gis ni nag li des ci liggéey bi mooy ñu fexe ba wàcc ci terrain bi créer lu mel ni nit ñu gis ko ñu xam ni vraiment ñii taxaw tëjuwuñ ci biir nekk. taxawaay làkku arab ci Sénégal euh, fu mu toll bokkoon ngeen ci seen xeex bak arab yi ñu harmoniser que. président de la république monsieur Macky Sall dafa ñëw jël engagement bu jafe. jël responsabilité bu jafe mooy lan jël bac officiellement nga teg ko ni bac bu arabe bii dafa valable ni waa office di bac teg leen programme bu baax ngeen organiser bac ñii doon jàng arabe ñu am bac comme ni ko ñeneen ñi amee. war naa laa wax ni problème mu bac boobu daf ñoo séparé woon ba def ñu ñun ñu doon jàng arabe ñu nekk ay noonu mun naa ko tuddee noonu mooy parce que école bu nekk da ngay jàpp ni li nga teg moo gën li keneen ki teg. mais tey loolu mënatul a nekk parce que bac bi teg nañ ko ñun ñëpp ñoo ko bokkale mu nekk benn programme certes nag am nañ ci ay problème parce que bu ñu demee ba université dañuy gis ni ki am bagu français su demee ba université def fac arabe day am problème mu arabe parce que arabe ba day ci moom mais ki nga xam ne dafa am ci franco arabe yi bagu arabam su demee ba université day am problème parce que programme français ba dafay diis ci moom ñu ni nag ñun alliance bi war nañ cee joxe ay idée wan président ni ko lii mooy sunu proposition mënuñoo dem peut-être ci moom toog moom di ko wax mais ñu def li ñu war a def bind wax et puis def lu mel ni yéen presse bi ngeen ñëw jël ko parce que presse comme ni ñu ko waxee nekkuñu fi comme ni ko gars yi bëgg a tuddee ni dañuy sànni xeer wala dara ñoom dañuy jël li nga xam ne moom la nit ñi génne. société bi nag bu fekkee li ñuy teg lu baax la ñoom affaire bi ci ñoom lay dellu parce que yéen da ngeen di jottali tey li ma wax fii moom ngeen di jël jottali donc ñun foofu la ñu nekk mooy ni. bac bi baax na ñu ngi ciy sant am nañ ko ENAM bi digg nañ ko ñëwagul mais jàpp nañ ni président dina ko def parce que bac bi mu ñu waxoon ni dinaa leen jox bagu arabe bi gëmuñu ko woon commission bi ñu liggéeyee ba pare ba jox ko résultat yi rek la ko la ko accepté. Euh, bon enfin je m'appelle El Hadj Moussa Fall je je suis enseignant à l'université de Thiès. et vous êtes là euh, ce soir Bon, je suis comme tous les frères euh, nous œuvrons pour euh, réaliser les objectifs de l'Alliance. Je suis arabisant. Parlez-nous je pense que ça a été très clair, comme l'a dit M. le coordonnateur Mohamed Lamine Fall. Nous avons constaté que aujourd'hui, il y a le manque d'éthique au niveau de nos hommes politiques, au niveau même, vous au niveau même de la presse, au niveau de toutes les... Euh, couchette couche de la société sénégalaise. Nous disons que nous, quand même, en tant que des hommes qui ont surtout euh, appris la religion, on peut apporter notre participation, on peut apporter notre euh, point de vue pour effectivement créer un Sénégal, faire développer le Sénégal. Mais surtout sur la base quand même de, de, de bonnes qualités par rapport euh, à, la, à la bonne gouvernance, par rapport à l'équité, par rapport à la justice. Et justement, est-ce que vous avez déjà un plan d'action ou bien un projet pour euh, mettre en œuvre euh, oui, oui, c'est ça. Comme l'a dit toujours le coordonnateur, nous, nous, nous, nous venons de, de, de, de, naître quand même. De telle sorte qu'on n'a pas encore donné corps à nos idées. Mais effectivement, nous avons une conception très claire du développement au niveau du Sénégal. Nous pensons qu'il est temps que tous les fils sénégalais se réunissent pour travailler ensemble. Nous ne faisons pas aucune distinction entre le musulman et le chrétien, entre l'arabisant et le, et entre le mouride et le tidjan. Nous voulons que tous les fils du Sénégal participent au développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas travailler un pays, en excluant des uns ou des autres. Alors aujourd'hui, quels sont les défis de l'association C'est très bon, je pense qu'il y, a, il y a quand même beaucoup de défis. Premièrement, la, la, le défi de la mobilisation. Il faut reconnaître que nous avons créé, essayé de faire une rupture par rapport à la conception des, des, des, des arabisans d'une façon générale. Les gens quand même créaient des associations qui s'étaient purement religieuses, qui excluaient des autres. Nous voulons qu'il qu y ait aujourd'hui une rupture par rapport à ça. Deuxièmement aussi, nous pensons que l'autre euh, défi, c'est la, la communication nous avons un très problème, un sérieux problème de communiquer avec la population et jusqu'à présent on n'utilise pas comme il le faut les, les techniques de communication. Nous allons donc essayer de renforcer ces aspects et nous aurons besoin de, de vous pour ça et nous allons pratiquement toucher tout le Sénégal. Le dialogue euh, interreligieux également est une Bon, ça aussi, il fait partie de nos préoccupations parce que nous pensons que, et nous sommes convaincus par contre, que le Sénégal ne peut pas être développé par une seule couche, par une seule religion, par une seule euh, catégorie sociale. il faut que tous les Sénégalais participent. Et notre religion ne nous interdit pas euh, cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait en Médine avec des juifs et des chrétiens. La première chose qu'il a eu à réaliser, c'est ce qu'on appelle Wathiqatu Madina, c'est-à-dire la charte de Médine, la charte de citoyenneté entre tous les Médinois. Parce que les gens pensaient que lorsqu'il était venu en Médine et devient fort, il allait massacrer les autres. Mais il a dit non, on va mettre sur de constitution, pour effectivement déterminer le droit et le devoir de chaque citoyen. Donc nous sommes, nous, convaincus aujourd'hui qu'on ne peut pas, on le dit clairement, on ne peut pas développer le Sénégal sans euh, un dialogue sincère entre les différentes religions. comment se porte la Oui, ça aussi c'est extrêmement important. Il faut reconnaître que euh, depuis 1960, euh, la langue arabe a été introduite dans le système éducatif sénégalais. Euh, entre guillemets, par exemple, moi j'ai fait mon mémoire sur ça, l'introduction de l'enseignement arabe dans le système éducatif sénégalais. Mais depuis, ce, depuis 60 jusqu'à présent, il faut reconnaître que l'arabe n'était pas prise au sérieux dans le système même. Mais aujourd'hui, vous entendez le, le, le, le, coordonnateur dire que le président Macky Sall, et au passage nous le remercions pour ça, il a instauré le bac arabe. Ça, c'est extrêmement important parce que la plupart des arabisans n'avaient l'occasion de continuer leurs études que dans les pays arabes. Ils étaient obligés de partir après le bac dans les pays arabes pour continuer. Mais aujourd'hui, avec le bac unifié par l'État, ils vont vraiment pouvoir continuer leurs études au niveau de l'Université de Dakar. Et que, et ça, ça je pense c'est extrêmement important parce que chaque étudiant, ça c'est naturel, chaque étudiant qui sort aller dans un autre pays, étudier là il va revenir avec leur culture, leur façon de faire et parfois même des problèmes de terrorisme, etc. etc. Mais si on parvient à avoir des programmes nationaux et, et étudiés et enseignés à nos universités qui prennent compte de, nos de de notre façon de faire, je pense que ce serait une bonne chose. La gestion de la cité intéresse des Arabes du, du Sénégal. Pourtant, mmh. vous n'êtes pas politique. Comment que...